xawma ñun ñi ku ñuy yabati waaye du Macky Sall waaw preuve bi mooy bërki démb bi muy ñëw ni day seetsi fii seen xalifa bi ñemewul jaar fii sama buntu kër ndax ni dafa ragal bu fi jaaree ñu yuuxoo ko ma ni ko man kenn yarewuma loolu waaw waaw je ne suis pas indiscipliné waaw bu fi jaaroo nit moo xam waaw waaye ngeen xam ni seen responsabilité fi ngeen jëm li ca aju bare na ay assemblée générale moo ci gën a tuuti assemblée nationale moo ci gën a tuuti waaw mais nag ci mbaaxu yàlla fii ak mille vingt quatre laxasu leen rek ñu laxasu waaw lu ngeen foogul rek def nañ ma ko. jóg naa fii di dem voyage marok ministre de l'intérieur mais de l'intérieur laay mën a wax mais ministre de l'inférieur damay wax ni ñett fi ne fii ci réew mi waaw Maguy Sall ministre de l'inférieur ak conseil waaw de la démo de waaw ma xam ni ñett yi nag réew mu ñu séq ku bëgg a defar réew ma bay boo nga taxawaat waaw ñu téléphoné ministre de l'intérieur bi nekk Maroc pour ñaan ko bu ma ñëwee foofu ci aéroport bi ñu arrêté ma foofu ma ñëw ñu ubbi sama passeport ni ma passeport bi validul te passeport bi tampon aéroport bu Paris mu ngi ci passeport bi ma xam ni bu validul woon xanaa ñoom bala ñu koy gis xanaa waa Paris gis ko ma noppi te seen cachet mu ngi ci ñu yendul ma ca aéroport ba toute la journée di dugg ak a génn ministre ba mujj ñëw ñuy dugg ak a génn yu kenn xamul benn comédie boo xam ni ma jékki-jékki ñu ne ah, comme léegi passeport bi validul dañ lay jël delloolu sa réew noonu ci policier yi newoon ci aéroport bi am ci kenn ko xool ba mu wóor ko ni ñi muy ragal kenn nekku fa mu def ma nii ma ñëw mënuma ni vient de chez vous maanaam xew te seen réew la jóge ñu nekk ci biir brigade bi am na ñu ci d'accord ndax deux bu jëkk bi mooy ñoom du ñu am seen problème ci seen réew di ko régler si fii bu ñaareel bi mooy marocain yi nekk foofu di fa liggéey kii nii buñ ko fi arrêté fii ñooñu ñëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte moo tax ñu ni leen ñun duñu ci d'accord pour ñu di ko arrêté bu dee dangeen dem nag ba sës xamu leen lu ngeen di def dugal leen ko ci avion bàyyi ko mu dellu ci réew moom mooy xam lu muy wax ak ñoom ci passeport am ngeen noté boobu